سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokki jullit yi mbokki talibe yi noo ngi leen di nuyu bi taqiyatin xasana wa kaamila wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa naabudullah tabaraka wa taala wa nasru wa naabudullah ala niamati allati atamaha alayna النعمة التي لا تعد ولا تخشى النعمة التي أولاه الله على الخلائق الحوص رباني alxaimu radiatu lislamiya almujahidul kabiru alladi afna xayaatuhu bi xidmati nabihi mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa qad baayaa nabi bi xidmatin ma xaalahu ubaayaa liyawma rasuli lmustafa bi xidmatin wa asqalu llah wafa qad baayaa wafa ma baayaahu bi xidmati sidq wa xazmi wa sujaa xaraja min daarihi bakadaari ila xidmati albahriya alxayba aw alxurba walakin kullu saalik xat awjabahu xubbu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walam yubaali bima taraak min waraihi aw min ahlihi wa awlaadihi wa atbaacihi wa ashyaqihi qad taraktu kullan li wajhi llahi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu wa qaal usuli qallat wal ahlu anni tafarraqat li maddahi allazi anhu maddihu qasir wa qaala aydan fi mahdat nabihi mustafa bi man bi hubbihi nasitu layla wa zahaban wa fiddatan wa xayala jubtu lahu lyawm bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidaya fi l alam jumlatu maali والوداد والحلم هدية للمصطفى باب نعم وقال أيضا ليست لي اليوم حاجات أؤملها سوى اقتفائك قف القلب والبدن كما قال الشاعر لكنه ورثت المختار في عمل وفي مقال وفي قلق وفي شيم دحينما يوس دحين وحينما يوس وحين جفينما يوس جفين جرم بدس وسير القديم هو القائم هو السجاع هو الذي حبذ بالحكام فانتشروا كما قال الشاعر شيقي وحق حبذت الحكام فانتشروا أنسى نفوسهم وزهر بتسديدي mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu nuyu jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyu taalibe ak mbokkum taalibe di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi yokku kattanam ba mottali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadim rasul te mu ànd koog mbooleem njabootu Serigne Touba gépp mbooleem njabootu Cheikh Serigne bi mbooleem kilifa dina yi ak jullit yi ak taalibe yi di siyaare bu baax mbooleem ahlu daahira Safinatul Aman Touba Lambaye di siyaare mboolem jàngkatu xasida yi nga xam ne ñoo fi teew buñ ci tuddee Serigne Moussa Ndiaye ak saa mi nga xam ne moo doon jàng léegi di suñ lépp danañu mën a jàll leen nuyoo jàngkat yi ci mbooloo mépp di siyaare bu baax jëw yi nga xam ne ñoo jiite majmua bi nga xam ne mooy safinatul aman ci njiitul Serigne Ibrahima Jenn ak sëriñ Mouhamed Diouf ngay dem bu ñu jëlee néew bi teg ko ci seen loxo da ngeen ñu ko mën a jàlleel ci mbooleem membres yi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi di siyaare bu baax mbooleem ahlu daayira bépp xëy na ni ma koy waxee jamono mu nekk su ma bëggee lim rek mën na maa bañ a juum waaye matal dana ma jafe. sëriñ góor gi Diouf mi ci kàddu bu am solo bi nga xam ne daaneel na ko léegi ñoo ngi koy ziyaare bu baax di ñaan suñu borom kàttanal ko di jël ñëw bu sell ak bu mag te ku ci waxoon sëriñ Dame Ndiaye surtout Cheikh Babacar xëy na moom lañu waroon a tudd waaye kilifa boo ko tuddee nu too mën a teg kenn ci kawam kon ñoo ngi jël nuyoo bu sell bu mag te ku ci loxoom di yàlla bu baax. mi nga xam ne moo nu bind def ñu ñu nekk ay jullit xam ngeen ne yàlla lim bind bari na waaye doomu aadama moo ko ci gënal kon dana war ci ñun jamono bu nekk ñuy sant yàlla ci def bi mu def ñu nekk ay doomu aadama di sant bu baax Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci tànn gi nga xam ne tànn nañu ko ñu bokk ci ay talibé ndax mënuñu ko mag mu baax mu ñuy wax sëriñ Maxtaar Mbay Kayre daf ko daan wax ne ko mbàkke ab nga sëriñ te boo doon ab sëriñ mënuñu leen taalibe waaye nu nga am kon ñoom xamoon nan daraja ak tedd nga ak maqaama Cheikhul Xadim te waxoon na xaabat maqaami am si wa baaxil kadim waaye ñoom am na lu ñu xamoon ci moom dafa mel ni laajal nañu si moor waxtaan wi ci lan la jëm mu wax ne nañu waxtaanee ak murit waxtaanee melo murit kon mu sëq ak mbokk yi waxtaan woo xam ne dafay nekk waxtaan wu gàtt rek dafay nekk ab yóbbal ñeen ñëpp ngir ne dafa am ñaari bi ci njëkk mooy fàttale bi ci mooy laaye biire fàttalee suñu borom ko wax fa sakkir moo ko digle laay bi leen di yem yonent bi alayhi salaam dafa wax ne addiinu nasiiha rawatina ci jamono bi ñu nekk nag nga xam ne ñi ëpp ci nit ñi ak bëgg Serigne Touba la ñuy tuddoo ak kennal Serigne Touba la ñuy watawoo waaye nag ñu baree bari dese na ñoo xam dëgg dëgg yoon wa dese na ñoo xam kii ànd ak Serigne bi lan moo war a nekk ay melow ak wàllu yoon la war a jaar rawatina jamono bi ñu nekk nga xam ne mën na ne mujj demono la axiru samaan mboolem alaamaat yi ak sinañ ci ci buñ ca yeggee jamono dana soppeeku jikko yi dana yàqu baax dana jafe bon dana tasaaroo ci àdduna sépp Sëriñ Tuubaa mi ngi tudd nag teeloon a xam ne yii yépp dina am mu teel a jàngal teel a bind ki nga xam ne dafay doon jëm ci moom ci wan yoon wan melokaan wan doxin la war a jaar ba am ak eggam mën a mat ak eggam mën a rafet moo tax Sëriñ Tuubaa sos li ñu tudde ak tarixatul muridiyya nit ki loo nekk ci mbir te xamuloo ko tey murid man nga nekk rek ne murid mooy koo xam ne dafa jóg tudde boppam murid moo tax benn waykat waxoon ne murit dëgg yombul la yombee nga wax murit dëgg laa da doon murit tariqatul muridiya lan mooy al muridiya sëriñ Tuubaa dafa wax ni al muridiyatu hiya tariqatu suufiyatul hadiya ila allahi taala allati asasaha asayxu ahmadu bamba xaadimu rasul ala al iman wal islam wal ihsan yoon murit mooy yoon suufiya wi nga xam ne dafay womme nit ki jëme ko ci suñu borom subhanahu wa taala ki ko sos di Serigne Touba sos ko ci atum 1882 jàpp 83 ginnaaw bi Serigne Mbacke moo ànd Serigne wàccee ab liggéey ba am at ak tuuti sànnatan wa siyaada di ko Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana andee ca Irwa una dim loolu mu sos ko ci nag jaala al iman gëm yàlla wa islam jëfe sa diine wa ihsan ak rafetal di sukkandikoo nag ci ñeent ala al ilm wal amal wal ibada wal adabul xasana di sukkandiku ji xam-xam liggéey jaamu yàlla ak ay teggin yu rafet di àttuma ci ahkaamu sharia tawhiid fiq ak tasawuf di yoon woo xam ne yoon mu sori ëppal la baidatun an ifraat wa tafriit yoon mu sori ëppal la yoon mu sori yéesal la nga xam ne kenn du nekk ab murit di réy réylu wala ngay màgg màggalu ba def ci bi ci sëñ Tuubaa defutoon waaye kenn du yokkat wala ngay deltu ginnaaw ba wàññi kër gi Sëriñ Tuuba wàññi woon te loolu buñ xoolee ci misaal lu leer nañ ay wolof nga xam ne Sëriñ Tuuba wax ko Cheikh ma Mbacke Cheikh Massamba Mbacke nee na Sëriñ Tuuba daf ko na kees dama woo kenn nekku fa ba ma dikkee damaa fekk Sëriñ Tuuba jël ñaari loxo ya tal tooge ko ci kaw bopp ba ma ne jaleñ mu ne ma Samba ma ne ko Mbacke mu ne ma li mu andi woon jamono mag na lu fi ma ko wax wax naa ko ba mu làggee ci sama làmmañ ngeen dégg lu fi mat a jëf naa ko ba mu làggee ci samay kër gis li ci naa ko bàyyi ku ñëw nekk ca leneen yaa ci nekk waaye ahmad nekku ca santaane wu te sëñ Tuubaa wax na Seex Masamba Masamba mu ko Mbàkke mu ne ko sama borom war na ma sama mujj jamono sama borom war na ma na ma la koy yàq na ma la koy nga xam ne koo man doon moom mënuloo yàqal sëñ Tuubaa léegi rek dama wax sama benn xarit ne ko sëñ Tuubaa yoon bi da koo déggul kenn kenn ku nekk na mën nga nekk jëriñ wala nga nekk jiite waaye yoon moom Sëriñ Tuubaa moo ko yor ndax waxoon na ci njaare bi jamono dina ñëw ndaw ñi wut si ci man dañoo mel ni ñu ko gëm ba noppi di ma dañoo yor peñeeb mburu boo dara waaye li ma leen di mooy gooñu gerte ba mu benn doom moo tax Sëriñ Tuubaa moom saa boo jógee ngeen dàq rek moom programme na lu yàgg nga xam ne lépp lu man doon Sëriñ Tuubaa na kon loolu mooy yoonu murid waaye kan moo di ab murid inna al murida huwa al muminu muslimu muhsin allazi la yuridu sawaa mardatillah daal mooy koo xam ne day nekk mu'min aji gëm yàlla yonent bi alayhi salaam mas naa ak saxaaba naan wallahi laa yumin wallahi laa yumin ba kenn ci saxaaba yi ko xaalu man yaa rasulullah mu ne képp koo xam ne lim bëggal boppam bëgg nu ko moromam kooku gëmul yàlla kon na nga nekk ak aji gëm yàlla nekk muslim nag kat mooy jullit man zaliman muslimu na bi yadihi wa lisaani jullit dëgg daal mooy koo xam koo xam ne jullit yëpp mucc na ci loxoom mucc na ci lore lamañam nga xam ne doo xas nit doo yàqal nit doo dóor nit doo ko saaga doo ko wax lu ñaaw doo ko jëw doo ko fen doo yàq alalam te loolu ni mu raare ni mu néewee dañ koy gis jamono bi ñu toll nga xam ne da nga ànd ak ni sax nekke mu jàpp ko sa xarit ngeen tàqal ko mu wax teew lu ñaaw wala mu yàqal la wala mu def nag suñu noonu ndax kon ñun jur bi ñuy wax dëgg-dëgg mu ngi ci ñun ak ihsaan rafetal nga jaamu yàlla ba nga xam ne yàlla moom yaa koy gis te mu leer na nañ ñi yàlla moom boo gisul itam ñu la gis ndax yàlla moom dara umb lépp nga fa suñu borom subhanahu wa taala moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ni topp yàlla kat murit bi na nga xam ne topp yàlla am na ñetti bànqaas wa sabta anna taata dalil laha salaasatu min al usul Sëriñ Tuubaa dina topp yàlla dafa am ñetti bànqaas awaluha xawfu wa saaniha raja wal xutbu saalisan li si usul jaabi nee na topp yàlla dafa am ñetti bànqaas bi ci njëkk mooy ragal yàlla bi ci topp mooy yaakaar yàlla bi ci topp mooy bëgg yàlla ragal yàlla nag ak bëgg yàlla ak yaakaar yàlla Sëriñ Tuubaa daf ñu ko jàngal dafa wax ni alaamatul xawfi min arrahmani tarkul maxaarija bila tawaal Sëriñ Tuubaa dafa wax ni ragal yàlla mooy nga bàyyi lépp lu sunu borom subhanahu wa taala tere daal wax ne képp ku ngeen dégg mu ne dafa ragal yàlla ngeen fekk ko mu nekk ci lu neexut yàlla Sëriñ Tuubaa ne la kooko ragalut yàlla waaye daa yëg yàlla ndax ku ragal yàlla bàyyi na li tere alaamatul xawfi rahmatuka fi taati rabbika bi nahjil Mustafa Sëriñ Tuubaa ne na yaakaar yàlla nag moo di nga yaakaar yàlla ca sa biir jëf bi baax jooju nga xam ne yaa ngi koy def di ca topp di ca roy yoonu alayhi salaatu wasalaam waaye da ne damaa yaakaar yàlla rek lu la neex def lu la neex dugub lu la neex génn taxawalu bu ñu waxee nga ne damaa yaakaar yàlla te mbokk yi xoolal loolu ni mu bari jamono bi ñu toll da gis nit mu leer kon nañ ñi te moom mii dem nekk lu xaram la wax yàlla bari na Sëriñ Tuubaa nag nee na yaakaar yërmande yàlla joju na nga ko yaakaar ci sa biir jëf ju baax mu wax ne mandargaam bëgg yàlla itam mooy nga xam ne dox jëm ci yàlla ndax ku bëgg yàlla sopp ko dox jëm ci moom wax ne bu yooyu matee ba noppi aji jëm it aji jëm jëm ci yàlla bi nekk am na waajtaay Sëriñ Tuubaa wax ne képp koo xam ne bëgg nga àgg ci suñu borom subhaanahu wa taala la njëkk ci la nga a def mooy na nga jàpp ci sunna Yonent bi alayhi salaatu wa salaam boo na nga dem wuti ab sëriñ boo xam ne dafa lay womet jébbali ko suñu borom subhanahu wa taala waaye sëriñ boobu nekk koo xam ne du jeng ci zahir du jeng ci baatin boo ko amee sëriñ boobu daf lay womet ci xam-xam di la womet ci jaamu yàlla di la ci adabul xasana waaye di la tàqaleeg loo xamante ni aada la man talaba al wusula lil jalil fal ya'tazim bi sunnati rasul bi an yulazima mutian la yamin fi shahiri wa batini an sabil yaquluhu bil ani wal ibada kama yurabbihi bi yamin la wax foofu moo doy waar boo xam ne du jàng ci zahir du jàng ci du dugg biir di selantale ak woowi jigéen ñu ko lewut di nin di xaqtaay te bu génnee ci biti di foq ay baaram naan maa leen gën sëriñ Tuubaa waxu sëriñ boobu mutian la yamin sëriñ boo xam ne du jeng ci zahir du jeng ci baatin sëriñ boobu boo xamee nag daf lay wommet jëme la ci sunu borom subhanahu wa taala mu wax ne boo noppee ñooru wa sakka anna taata jalil laha salasat min boo booree na xam ne nag aji jóg jëm ci yàlla bi nekk la war a njëkk te moom mooy mu wuti wasila wuti ab sëriñ ndax kat sëriñ Tuubaa nee na képp koo xam ne amuloo ab sëriñ bu lay wommet ak fu ngeen ko man dégg na ngeen xam ne moom moom daf sëriñ waaye saytaane moo nekk ab sëriñam ndax ku jaarul ci loxooy sëriñ moom sëriñ weer ko dana am coono li moo tax sëriñ Tuubaa nag jàngal ñu nag yooyu mu moo di ak murit ki nga xam ne da nga koy gis daal ne kii de ak murit la mu mel ni mbubb mooy sol rek mu mel ni nga sol sa benn baay la takk maxtum sol mbaxana ci kaw di dox ndànk yor sa kurus ñu ne kay ab murit la am murit saadiq ki nga xam ne dafa dëggal am murit saalik ki nga xam ne dafa suubu am murit waasil ki nga xam ne dafa àgg gën bi muy murit bi ma wax mooy li ma njëkk a wax kan mooy murit saadiq sëriñ Tuubaa dafay jàngal kan moo di murit saadiq dafa wax ne sifaatu saadiqi li muridi bi ixtisaar arbaatun nasamtuha aw faqira melo yu murid saadiq day ñeent la ndax wasul muridu tarkuhu irada li wajhihi man yafalu ma arada sëñ Tuba nee melo murid moo di bañ a amul bëgg ci lenn ngir jëm yàlla tabaraka wa taala mi def lu ko neex daal di wax ne man lam yurid say an siwa mawlaahu yasillahu wa xayru awla képp koo xam ne bëgguloo léegi nuyul boromam dana yàgg te moom dana la may wépp yiw fa man taallaqa bi waasilil wasal wa man taallaqa bi axsil fasal ku aju ku aju ci sëriñ bu ëppul doo àgg boo demee ci garage bi fekk bo oto boo xamante ni amul yàggee amul ci pënal nga bi kenn na dem tamit doo dem ñëpp dañu dem la kon fa man ta'allaqa bi waasili wasal fa man ta'allaqa bi arshihi infasal mu wax ne mu sàdeex ñeent la yaxal naa ko way naa ko bind naa ko ngir ragal ak lool bi ci jiitu mooy ashidqu fi mahabbati shaykhil abad dëggu ci sopp gi nga xam ne sopp nga ko sa mbokk yi buñ bëggee xam nan la ñuy soppe suñu sëriñ ndax duñ delluwaat ci sëriñ Tuubaa moom nan la soppe woon alayhi salaatu wasalaam mbirum sëriñam ndax am na benn naar bu ñëw sëriñ Tuubaa ne ko ndax Cheikh Sidi mooy sëriñ sëriñ Tuubaa ne ko ah baa na li kulli man lahu maqul an na wasilati huwa rasul looy gàtt gàtt xel xam ne ne man rasulullahi rek mooy sama sëriñ naar bi ne ko ana nan nga demee gaa yàlla yi sëriñ Tuubaa ne ko li ma bakkan a tàng ci xam muy lim pompal yi ko gën a neex te di lim di lim di lim ba dem ci ku ñuy wax uwaysul ne ko wa ruyati an li kashfiyan sama gis-gis ñi nga tudd dafa mel ni ay fenkat ay liir daan nag uwaysul xaram yi moom nga tudd wala wa adrakani uwaysul xaram yi la rafaqani wala kuntu kaashiban la axsar law fiqin nag uwaysul xaram ni mi nga tudd bu fekkente woon jamono man ak moom day takk ndigam di ma liggéeyam ne ko lii ma wax nii bu ci dara la nekkee su borom gàcceel ma kon yonent bi alayhi salaam mooy sëriñam waaye xoolal ñaata nit sopp na bi ak taxawaan sopp na bi ak kañ kañ sopp na bi dem soirée sopp na bi dugg fu la neex génn déedéet sopp na bi maqaama la na ngay andi ci maqaama mahabbateen muxtaara maaniya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaa'un lahu abdan qadiman lahu mushkaamani sabla kooku mooy Cheikhul moo sopp na bi bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne man Ahmadu Bamba su ma wala jaan wala ak dëkk bëgg koo jam man Ahmadou Bamba du ma wut lu roy géej gi du ma wut lu roy jaan gi du ma toppale dégg gi daan na nan lay def sama lex bii lay jël lay taale ko ca kaw dégg ak jaan ji ak dégg rasulullah yi jël tànkam bi teg ko ca beneen la ba daal di jàll xat dëngi bi xaayatu li rëjji ne mu ci taba en sawkati moomaa yu daha aqraba wax ne jutluhul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayati jox naa tey rasulullahi sama ruux jox ko sama jëmm jox ko sama wàjju jox ko sama lépp jumlatu maali wal midaadi wal xalam hadiyatu bi Moustapha baabi ni xam kon moom léppam la joxaane ji fi salaatu wasalaam amul lenn lu mu bàyyi buñ bëggee bëgg Serigne Touba Cheikhul Khadim dëgg dëgg nag dañ koy rek ci loolu te Sëriñ Touba daa waxoon ne man Ahmadou Bamba damaa bëgg rasulullahi bëgg bëgg képp ku ko bëgg wa inna ma hibbun lahu wa hibbu man yuhibbu kon tey boo bëggee Sëriñ Touba dëgg foo gis taalib Sëriñ Touba ni ko bëgg def ko ndax suñu ko daf koo ñaan yaa rabbi ijaal muridina maa fi xisnaka alxasin wa sallañ maam bi ci mu wax ne jëfe ndigal lan mooy jëfe ndigal mbokk yi sëriñ Bay Jaxate dafa wax ne lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba njariñ jox ko te tutkul ay ndigal boo bëgg tey sa sëriñ ñenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy jox njariñ mu dina jox ay njariñam

daan na li annahu xayru min albidaani fi charq fi sarq wal max wa suudan bi daan na li tax ma wax ko mooy Sëñ Tuubaa moo gën penk gën saw moo gën ko weex gën ko ñuul amma isa jëhantu ahmadu nakiy fa innahu waarisu muhammadu nakiy bu fekkee réer nga ba xamoo dëgg dëgg kan mooy Sëñ Tuubaa demal nga xooli mantob an isalaatu wasalaam ba mu soloon ba mu soloon Seexul Xadiim moo ko doon bi ci mooy nga bàyyi sa bopp ak sëriñ bi lay womet jëmee ci suñu borom kon day mel ni waxtu yi loolu mooy melo yi nga xam ne murid war na ko am na xam ne ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañu kenn ku nekk ci ñun la nga yéene sa bopp rek na nga ko yéene sa bopp mbokk yi nañ bàyyi xel dëgg-dëgg laa yuminu ahadukum xatta yuhibbu li axiihi maa yuhibbu li nafsihi te wallaahi azim billaahi bari na ñoo xamante ni li ñu yéene seen bopp yéene ñu ko seen morom te ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi la nekk ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi la nekk te nag ku nekkul ak jullit nekkoo mu'min nekkoo muslim mënoo nekk taalibe Sëriñ Tuubaa dama jàng kasida wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'minin asabta fawran li siwaanaa kulla man laysa yakuuna mu'minan musliman muhsinan in rumta shaytan min illahi kasima demal nga sëriñ Tuba ne la képp koo xam ne ni ko mu'min ni ko ko muhsin jamono bi nga wutsee lala su borom dàq la sori ma kon nañ fexee nekk ay dëgg-dëgg jullit nekk taalibe sëriñ Tuba nag rek sax ci liggéey sëriñ Tuba lan moo gën a ñaaw nga ne talib Sëriñ Tuubaa nga di wax sa mbokkum biir du ñaaw damaa jëlee loolu ci misaal ngay fekk ab murit boo xam ne day mel ni man foo ko fekk lool foo ma lu ma xam la. te ci la amee waa léegi koo xam ne gëm nga ne Serigne Touba la Serigne Samba Diané bi wax ni ku faatu yaa fay njëkk a teew bu ñuy jullee nga di fa teew ñu rot nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des tontu la yam bàmmeel ni mu xóoti takk la laxas la sang la gas ba mu xóot suul la ci biir Serigne Touba fekk la foofa ndax yow mi nekk sa biirum néeg Serigne Touba mun laa fekk foofa. ndax boo xalaatee ne sëñ Tuubaa gisul ci si biir loolu te sëñ Tuubaa moo wax sëñ Hamsatu Jaxate Hamsatu mu ne ko Mbàkke mu ko santari fu mu nekk di benn maa ko ñaareel fu mu nekk ko ñetteel nekk di ñett di mbooloo maa ngi seen biir kon fu ñu nekk fu taalib sëñ ma jeexale xaatimatu moo muy téere bi nga xam ne moom sëñ Tuubaa mu ngi bind bi ñu ko bindee sëñ Basiiru Mbàkke moo ci yem daal di jël xasida gi liir ko Sëriñ Tuubaa bind ci biir wax ni ginnaaw bu ñu yóbboo Tuubaa danaa fi nekkaat ñeenti téeméeri at yoo xam ne maa def maa ji bi Sëriñ Basiru bi mu gisee loolu loolu mu daal denc xasida gi bañ ba loolu wees mu dem jox ko Cheikh Mouhamadul Moustapha sëñ Mourou gis ko loolu jaaxal ko lool mu daal di dajale mag ñëpp benn leen ba compét kenn ku nekk ci ñoom mu dem na dana xasida gii day sëñ Tuubaa ko bind bay bii wax ci biir kenn ku nekk ne ko ah man day fii laa yemoon ci sëñ Tuubaa sëñ Basiiru jël xasida gi daal ne kenn rek laa xam ne su ma demee ca moom tontuma ci ma xam ne lii mbirum boppam la muy sëñ Hamsatu Jaxate keroog sëñ Hamsatu waxtoo yor yor dafa rek naa ju ne kooku mu ne Mouhamadou Bachir sëñ Hamsatu Jaxate dana yokkee jot daal ne Mouhamadou Bachir loolu wax arab bi ne daa fekkoon mu suunu benn client mu ne ko waxtaan ak moom daal di génn xasida gi ne ko xasida gi rek sëñ Tuubaa daf koo fee bàyyi waaye daal di ci biir biir boo xam ne jaaxal na ñëpp ma xam ne mel nam yow ndax ni nga jaxasoon ak sëñ Tuubaa ndax sëñ am sutu xam ne ko xam sëñ mën mu nekk mën nga faa fekk bir ngay bëgg ndax ni mu jaxasoon xam sa dane ñokkee toog ci biir daal ne ko Mouhamadou Bachir mën na na ko mu nit ko waaw waaw mën maa ngi wat ci yàlla ne man ngi wat ci yàlla ne ni ma mii ne jëm mi sëñ Tuubaa ak ni ma ko xàmmee xam ñi ma ko woon noonu bi muy na ko Bachir mu ne ko Mbakke mu ne ngi sol ci manto yi ngeen di sol di takk ci maxtum yi ngeen di takk ànd ak yéen jaxasoo ak yéen di rombante ak yéen te suñu gisee du du ngeen ko xam daan na ko Bachir mu ne ko Mbakke mu ne ko am na gàcce koo xam ne dee bañ dem ba dee bañ ko fekkee sax gun sëñ Bachir nag gàcce googu mooy mooy lan mu ne ko nga nekk ci dëkku sëñ Tuubaa bii wala ngay tuddoo taalib sëñ Tuubaa nekk fa nga nekk di mooy yàlla Serigne Touba dana gis daan ne ko Bachir mu ne ko Mbacke mu ko Serigne Touba moom moo ma saab fu mu nekk di benn maa ko ñaareel fu mu nekk di ñett ma kon noo ngi leen bu baax a baax a baax ñu gën a bëgg Serigne Touba xam ne moom mooy mbir mi Serigne danoo war a ci dëkk waaye benn benn woykat Serigne Mor ko ma woy fi ndaa ma la gàttoon te gétte waa Fass تروا يا رمي فاس دور جار مقناص ألم ترى عيناي مثل سيقي جمالا وكمالا وصار وسيم mu ne ginnaaw ci yàlla sama ñaari guddi yi mos na ku mel ni Sëñ Tuubaa da ngeen jàng ni ci borom aras maras daal na Sëñ Tuubaa da daan muuru yor ñetti kaala yi joor rawoon yaa ko daa féete ca wàllum joor bu mu lay gën a lam sat si gi badan laas di saf laan wurus moo ko jekk ay faas te su bare pej di faful di aw ñuul yaram waa karata ba mel ni jaay ni ngolloor fi nam waa jëmëri mel ni ab di jàmbaar xam ni wul tàppi ten warir soxlaat ci kun lay téléphone caméra la ba pees xolam gën a rek lam ku jëfal mees bu gëtee nelaw it tëri moom ma ngay xool nga yëri muul bu gëtee nelaw it taxu nga demaaras moom xanaa war na ci alquran wax yi suum te nee laa du kootee di pays di wante passé lu ñu sàggari jël li nam moo tax macha allah